intéressé mhm. euh, Les man li ma bëgg xam rek convergence de vue ndax vision moo leen ndax convergence programmatique moom moo leen wala ndax l'homme Macky Sall moom moo la convaincre ba tax nga né di ko gunge ci li nga xamante ni la ko sénégalais yi tay est-ce que dans la vision parce que keroog jam ñaajo dama dégg nga wax vision dama mm. dégg dinañ ci dellusiwaat bu ñuy wax ci xëyu ndaw yeeg yoy mm-hmm. mais fan ngeen retrouver wu ba tax tay ji nga japp né déjà l'homme Makissal, avant président de la République Je am d'abord. nit bo xam xam incarné en tant que nit d'abord lolu mo Deuxième, deuxième bi dama suis candidat à l'élection présidentielle 2012. Nous, invalidément le 27 janvier je crois. Bon vous candidat sauf candidat le président Abdoulaye Wade Nous sommes ku nekk aussi ma ma laaj ko lan la bëgg président mu wax pas ici que je vais étaler tout cela mm-hmm. ma gëm li mu wax benn point là ci génne mm-hmm. moom redistribution daf m'a wax ne que Sénégal yamul Dakar il faut distribution bi demee neneen un peu plus à l'intérieur du pays c'était quelque chose qui xam intéressant intéressé parce que tous les investissements yu c'était autour de Dakar où innovation yi nga dañ politique d'appui des populations voilà, mais ay ay gox que aussi lenn de fa ça, ça m'intéressait énormément. Et je l'ai vu. Parce que j'ai eu la chance d'être là quand il arbitrait le premier budget. li mu doon daggee di def loolu nga xam ne loolu la donc bi ñu xamee ni candidat yi ñëw na bi mu waxtaanee ak moom moom gënoon ci gis-gis mais yamuma foofu ma ni ko je ne peux pas me décider ndax dama bokk M23 ñu am lo ne dañ ko doon dox Té lolu mënuma teup rek Je ak kenn tas ko Maki ma ngi and ak que le lendemain voter à Pékin pour respecter les autres parce que ñëpp ñun ñoo M23 ci ñëw jox ko sama ne d'accord na ànd yow pour élection bi nga deuxième tour le deuxième tour effectivement. j'étais le premier à venir et ne quoi yow lay andal ci élection bi ndax li wax ñu and ci façon de faire Je xam nga xam nga rek matal yalla rek règlement matal mais intention il ma gis intention yoyu ku jara andal la ndax lulay won li gën am importance moy am capacité d'écoute li fi xew barki Dembo jay suñu amul won président bu am capacité d'écoute comprendre redistribuer refaire les choses autrement pour présenter un plan kooku du nit kuy déglu ku ñëwoon rek continuer ci li nga xam ne moom moo fi nekkoon avant continuer avec li nga xam ne moom la tegaloon au niveau du gouvernement au niveau du budget au niveau du fonctionnement ma ne kii déggul daaj mhm. waaye dafa dégg daaj mhm. am na capacité d'écoute et ça c'est très important mais capacité d'écoute wala entêtement parce que 13 morts am na musiba yu bëri am na balaa balaa muy réagir waaw mais xam nga xam nga gis nga Pape mhm. Euh, kenn ñaanul yàlla bakkan yu faat. mais est-ce qu'on vous ne pouvez pas éviter tout ça euh, est-ce que mënuñu ko woon éviter. waaw xew noonu. xam nga xam nga la la wax sànq bi ñuy wax ci Palestine. Mm-hmm. dafa am yu bare yoo xam ne buy ñëw. waaw da nga koy. da nga koy séen mën nga koo woyefal. Mm-hmm. wala nga foog ne ne que day jàll. Mm-hmm. mais dafa bari ingrédients yu ñëwandoo. bi mu ñëwandoo nag ci la en laps de temps. ci la xew ba mais quand même que automatiquement il a quand même jël une décision pour répondre à certaines questions même si ce c'est pas toutes les questions qui ont été euh, résolues mais a une ay solutions une propositions sur certaines questions notamment li nga xam ne emploi des jeunes pour essayer nit ñi gën a am liggéey. mais kilifa diine yi itam am ci am am ci taxawaay bu am solo. kilifa diine yi ñooy lépp. Mhm.